ñëw fii tey seet si directeur général ñu gën koo xam ci Pape Macoumba Anne di wuyoo ci turu oustaz Pape Anne ñëpp xam ko mu nekk télévision Futur Média di fa liggéeye di fa wax lu am solo ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag rawatina it muy naane ci keppaaru Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko yëgal ni it mbégte gi ñu am it bala ñu lay bàyyi it oustaz dañu lay jox kàddu gi nga nuyoo ziyaaranteeg mbokk yi te xam nañ it jot gi mayewu ko waaye it nga may ñu deux minutes rek rek rek rek ci yonent bi loo nga xam ni benn message rek bu nga xam ne dinañ ko mën a jàll buñ paree ñu jox seex bas moom it cinq minutes rek mu gërëm la ñu yëkkati jotaay bi. jërëjëf eh, Alxaji Sayer mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nu ngi am bikte bu baax a baax ñaan borom bi subhanahu wa taala barab bi ñu ne yal na yàlla ko maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ni ñoo safoo seen chaîne bu mag bi di Dental TV ñaan yal na yàlla yëkkati ko yal na yàlla ubbi ko tey jii nag dañu ñëwoon set si leen waaye nag set si nag sunu lépp sunu xarit sunu soppe tabarakallahu di Seyd Mouhamed Bachir Cheikh Mouhamed Bachir moom moom yonent bi moo nu boole ndax fi nu xamante mooy ci tàmtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu defal nu fa teraanga boo xam ni bi mu koy def yàlla kese tax mu def ko sëriñ Mansour borom daara ji nag moo daan wax ni as gor bu ñu la defalee teraanga nga yoori leex ni dama ko yeyoo nee na loolu ci baadoolo la bokk tabarakallahu kon te yàlla te Seydina Muhammad moo waxoon ni man lam yaskuri naasa laa yaskuri laaha yonent bi nee na ku dul sant nit doo sant yàlla ku dul sant nit doo sant yàlla sunu ñëw tey sunu ñëw fii tey nag muy ñëwoon di sant si Cheikh Mouhamed Bachir gërëm si ko waaye ñaanal ko mook ñi mu bokkandool liggéey bi waaw mook ñi xam ni ñoom la bokkandool liggéey bi yal na yàlla yëkkati agence bi yal na yàlla yëkkati société bi yal na yàlla yëkkati euh, télévision bi yal na yàlla yëkkati rajo bi léegi rek maa ngi koy déey ne ko nag président de la république coono gi nga xam ne yaa ngi koy daj ci moom Warna la laa jox sa licence nak waaw ah, ba rajo bi yëkkatiku waaw ah, président war na xam Mouhamed bashir ciono gi muy dacc ci mom ci banlieue ya bi Warna ko jox licence am nak ba ba ba rajo bi ñew ñu eh, ngi ñaan président mu jox Cheikh eh, Mouhamed bashir mu jox ko licence bi eh, rajo bi ñew ndax rajo bi en ligne la bo demul ci internet bi do ko mëna am kon bashir di njambaram ak ci yittem ak social bi nga xamni mi ngi koy def ci banlieue ya bi yépp koku ku nu wara bëmax la. kooku ku nu war a jàpp la kooku ku nu war a jàppale la kon président nu nga lay ñaan euh, Cheikh Mouhamed Bachir ñu jox ko licence boo xam ni rajo bi dana gën a yëkkatiku jox ko licence boo xam ni télévision bi dana gën a yëkkatiku loolu nu nga koy ñaanal euh, di ko ñaanal euh, ñi nekk ci barab bi di liggéey yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral. yàlla na yàlla sàmm kóllëre gi xam naa du ñàkk nag beneen bis boo xam ni danaa ñëw nag def ci def ci émission spéciale ñu waxtaanee Seydina Mouhamed.